L'eau multimédia moi de di émission Assalafou Ma'al Qur'an nous sommes l'eau multimédia 27 avenue Émile Bajan, angle Paul Oldakar. Dakar l'eau multimédia spécialiste le l'informatique, informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires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 mbokk yi ñu dellu si waat ci suñu jotaay asalafu ma al quran ñu koy amee ci kër gi di la maison du coran baraka arrahmanu fikum wa taqabbala minkum wa minna wa ja'alana wa jama'ana ma ahli alqur'ani fi dunya wa yawm alqiyama wa fi jannatin aliyah مع نبينا محمد والأنبياء جميعا وكذلك المرسلين والصالحين tey nag ñu fas yéene waxtaane lenn jàngale bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale moo tax nga gis kathir mina saxaaba wa salafi saalih ñoom ñu daal di génne ci li ñu tuddee al madrasa al quraniya an nabawiya ñu génnee ci li nga xamante ne moom mooy école yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li hada sanau al mujizat wal karamat nga gis leen ñoom ñu dem ba mel ni ay mujiza lanu dem ba mel ni nga xam ne ay karamat lanu parce que ni leen yonte yàlla Muhammad defaree parce que saxaaba yi nañu bëggee woon yonte bi rek mujiza la ko borom xam-xam yi limee soo demee ci ulamaul mahabba biñu ñu tudd li nga xamne moy ciofelu sahaba ci yonte bi dañoo ne ciofel gogu mu'jiza la bokku na ci kemtan yi dañu ñëw ci ki nga xamantene ne modi abul aliya mu bokku ci kibaru tabiin abul aliya nekkon ki nga xamantene mujahidun kabir abul aliya nekkon mujahid bu rëy nekkoon abid ko to yàlla buur bi subhanahu wa taala bu rëy mu jange ci len ci sahaba yi jambaron lor ci li nga xamne ne moy war wi benn bés abul aliya dafa jóge kërëm ne day dem jihaad mu bokkon ci ñi nga xamante ne fi nahar wa ruhbanun fi layl beccëk bi su joté ñu daal jël seen doole may ko l'islam guddi gi su joté ñu daal wét ak borom bi subhanahu wa taala di joy di jàng alquran abu aliya daal di jóg ne day dem jihad ci yoonu yàlla abu aliya ba mu jógee pour génni kërëm mu daal nek sentir ne tànk bi amna lu cey métti abu aliya di sox tànk bi mu ne xaaral ma wo docteur bi médecin bi mu xolal ma li lan la ba mu woowee docteur bi docteur bi daal di ñëw xol tanki ba pare mu ne ko ya abul aliya yo abul aliya rahmatullah alayh mu ne ko febar bi de hada maradul alika mu ne ko li de febaru alika la abul aliya ne ko wa mal alika ayuha tabib lan moy alika yow docteur bi docteur bi ne ko alika febar la bo xamantene ab ben sax mom moy duggu ci yow da fay duggu ci ben cieur diko lek ba sayu ko jexale daa di toxu ci beneen cër ba keroog muy mate yaram bi laa ilaha illa allah abul aliya ne docteur bi lan mooy solution ci sama tànk bi kon docteur bi ne ko xanaa ñu dagg ko rek xanaa ñu dagg ko xanaa ñu dagg ko abul aliya amu ci pexe mu ne ko kon nañ ko dagg parce que moom dafa bëggoon am ñaari tànk dem di jihaad yi ci yoonu yàlla docteur bi daa di jàpp bés bi mu ñëwee mu daa di andi ay pikiiram mooy pikiir yi xew léegi nga xamante ne léeg moom ngay pikiir nit ki comme soo ko bëggee opérer mu ne ko opération bi bestel la manam xam nga suñu lay opérer amna luñ lay pikiir moy tax do yek mettit bi waye jamono jojje comme que amuñu won pikiir dañ lay jox ben dorog nga nan ko soko nané rek mom moy tax day ray der bi ci kaw suñ koy xoti wala ñuy tocc ay yax sa do ko yek comme ni muy amé tay ji ci hôpitaux yi parce que médecin dafa dafa gëna développer tay ji bi nga xamantene docteur bi waxna abul aliya lolu abul aliya ne ko bal indi ma huwa xayrun min dalik mu ne ko det am naa dorog boo xam ne moo gën a efficace boobu moo gën a efficace sa bos jarul nga may jox naan lenn jarul nga may andil lenn mu ne ko lan mu ne ko alquran kitabullah mu ne ko téere yàlla bi mu ne ko jiuli bi qari'in yutqinu alqiraa wa tajwid andil leen ma jàngkatu alquran boo xamante ne baatam neex na alquran am wér la waj'aluhu yaqra'u wa ana asma ngeen teg ko sama wet muy jàng فإذا رأيتموني سايو نين ديمي بغيس ما سما خاركانا ملي لو خونكو وشخصت بصري إلى السماء نين جسم ما دادي خولي خول سماي بتي أسمان فافعلوا بي ما شئتم بوبوبا لولين نيخ دفلين ما لا إله إلا الله القرآن نيوم دقلو القرآن في لين دون يوبو نيوم سلف السالح دكتور بدادي ديمو خول جانكتو القرآن الكريم مثلا شيخ محمد الهادي توري سما مك جوجي بارك الرحمن فيه ني دادي كي أندي te ko ayo kay jàng alquran alkarim waaji commencé aoudu billahi min asheytani irajim di jàng alquran abul ali di déglu di jàng alquran abul ali déglu ba bi ñu gisee xar kanamam xonk na mu daal di xool ca asamaan médecin bi ci la commencé jël tànk ba di ko dagg di toj yax bi di tànk di di di ko di ko dagg dagg tànk bi dagg na ba pare ci la door a wax jàngkatu alquran bi ne ko arrêtel bi jàngkat bi noppee rek abul ali ci la doolay door a xam ne ndikit yoo dagg nañ tànk bi laa ilaha illa allah docteur bi daal di ne ko yow abul aliya bi may dagg sa tànk bi lan moo tax yëgoo ko te naanoo dorog mu ne ko neexaayu alquranul karim tax na mënumaa dégg leneen manu mënumaa yëg leneen laa ilaha illa allah alquran ñoom nii lañ ko daan yëgee moo tax ma ne mbokk mi problème mu boo boo mënti am te tëjul nga déglu alquran déglul kenn ci jàngkatu alquran yi soo ko dégloo rek da ngay gis da ngay fàtte lépp yaa ngi am tuyaaba yaa ngi dundal sa ruux yaa ngi dundal sa xol yaa ngi sa jëmm yaa ngi may sa bopp tuyaaba ju bëree baree baree bëri Abul Aliya ba docteur bi bëggee jël tànk bi pour dem suuli ko ci armeel ya Abul Aliya ne ko jox ma sama tànk bi jox ma tànk bi comme que yàlla dogal na maag sama tànk bi tàggoo nanu yowmal qiyaama lañ war a dajewaat jox ma tànk bi docteur bi daal di koy jox tànk bi mu daal di téye tànk bi nii moom Abul Aliya mu ne ko ida laqitu rabbi yowmal qiyaama wa sa'alani hal mashaytu biki aw masastu biki ila haram la aqulanna la wa ana sadiqun fi ma aqul mune yow tànk bi suma dajje ak yàlla yowmal qiyam mu laaj ma ndax musna dox ànd ak yow lu tollook ñeen fukki atu yàlla bama duggé islam ak léegi ndax musna dox ak yow tànk jëm ci lu haram wala musna la laa laalal lu aram suma ko yàlla laajee yowmal qiyam dina ko ne musul am te wa ana saadiqun fi ma aqulu te deug rek la wax la ilaha illa allah mbokki kan mo sañ lolu tay ji ñun at rek at nga ne yow sa tànk at demo ci fu aram laaloo ci lu aram ki nak neena ñeen fukki atu yàlla neena tànk bi ñu ngi koy suuli yowmal qiyam lañuy ñuy dajewaat parce que ci la ko yàlla di delo wat ci jëmmam mu ne ko yow tànk yowmal qiyam suma yàlla laaje ndax bima duggé ci l'islam ak légui ñeen fukki atu yàlla mosna dox ak yow jëm ci lu aram wala ndax mosna la laa laalal lu aram dina ne yàlla mosul am te waa man lima wax degguna ci لا إله إلا الله اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إليك اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا فانت الغفور فانت الرحمن مبكي نانو يالا جيغل نانو يالا بال في لا سلف صالح تولون سي جامو يالا في لا سلف صالح تولون سين ديغنتي اك بروم بي سبحانه وتعالى نانيو غور غورلو بور جيما خام تيري بي بني امام دا فاي نيتري نينا دا فا امون بني سخنا سو خامتاني نيوم نيو بوكون بني كوغن بي موني سخنا سي دا فا نيكون اك دومام دوم جي نك يالا دينكون كو علال فار يالا دوم جي بيموي واجي توكي نك مو بايي سخنا سي علال جوباري ñu teg ci benn at rek imam bi nee ne ma gis soxna si ci buntu jàkk ji moom mu nekk di yalwaan di yalwaan mbir mi daadi koy jaaxal lool mu daal di ñëw ba ci moom mu ne ko xanaa yow sa doom nekkul di la yónnee alal nekkul di la yónnee xaalis weer wu dee maire bi ne ko déedéet li fi nekk kay mooy weer wu dee rek sama doom daal benn photo la may yónnee footo bi daal dama bënn daaj benn pont su ma ñëwee ko fay wekk di ko xoole comme que bëgg sama doom imam bi ne ko suñu jullee ba pare dinaa ñëw kër ga bi imam bi jullee ba pare daal di ñëw kër ga bi mu ñëwee mu ne maire bi wan ma photo bi maire bi daal di koy wan ndekete yoo doom ji weer wu nekk dafay jël sec bind ci xaalis maanaam day bind sec xaalis bu baree bari daal di koy yónnee yaayam pour yaay ji su ñëwee daal di koy jëlee ci banque bi waaye maire bi xamu ci dara pour moom daal sec bi daal ab benn photo la rek bu muy daaj noonu est xam ngeen li ñuy jël leçon bi ñuy tiiree ci li nga xam ne mooy nettali bii mooy que ni ñun li gën a bari ci ñun ñun lii la ñu jàppee alquran téere yàlla buur bi subhanahu wa taala bii nga xam ne moo ñu tax texe adduna moo ñu taxati xe texe àllaaxira waaye ñun xamuñ ci dara nañ ko jàpp daal di koy jàng rek daal di koy tek te téré bi lañu waron mëna ubbi génne ci ay jàngat xol li ci yonent yàlla Muhammad wax xol li ci nekk ci al ci xam-xam parce que wanazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shay alquran alkarim mbolem seen xeetu xam-xam ya ngi ci bir te man qara alqurana mattaahu allah bi aqlihi hatta yamut nañu ul ubbi wa téré bi génne ci ay jàngat ñu baña melni mel ba li nga xamné sek bi daf ko jàppe ben photo bo xamne daf koy jël rek diko daj ci miir bi li mo nekkon suñu jotay asalafu ma alquran ma kana min sawabin famin min arrahmani wa ma kana min khata'in famin nuqsan sallal ilahu ala an annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes l'eau multimédia 27 avenue Émile Badiane Angle Paul Old Dakar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 Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion.